رسول الله عن مكر ماكر وشؤم لذي شؤم وكل الجوائح سحر لذي سحر وعين لعائن فمن رام ضري قد سعى في مصالحي ليمن رسول الله كهفي وملجئي فما مبغض عبد الحقير برابحي نصحت لمن يبغي السلامة والعلا يخلي عن المداح من كل قادح فإن رسول الله حامي زماره وقد جاء منصورا على كل كادح وقد كفي الأحزاب يوم تحزبوا وردوا بغيظ بالبلايا الفوادح وإني مع المختار في كل حالة حب وذكر ثم قرض المدائح ومن راش نحوي سهمه فهو رائش إلى نحره ولينذرا بالقوادح عليه صلاة الله ثم السلامه أنال بها كل المنى والمرابح عليه صلاة الله ثم سلامه ليرفع عن الهادي على كل مادح عليه صلاة الله ثم سلامه لتملأ من حب الأمين جوانحي عليه صلاة الله ثم سلامه ليقبل سعي ثم كل المدائح ثم ليقبل سعيه ثم كل المدائح عليه صلاة الله ثم سلامه فتسقى أرادي بالمزون الدوالح عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها نجحي وكل المصالح عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن يقتبي من كل بر وصالحي وانا حماني فقلنما حارنما رسول الله ينتي علي صلى الله عليه وسلم من كل رامح تكب أجي فت ينتي بيما فقل بيبو نون بو أمين غارناي رك بغي جمتي من yonti mi fegal no makko hamani rasulullahi min kulli rame ci képp aji fett la aji fett boobu amul ci aji fett rek waaye képp ko amee ngànnaay jëm ci moom rek nee na yonente bi sal allahu alayhi wa sallam fegal na ko hayi kóog ماني هارنما رسول الله ينتهي محمد صلى الله عليه وسلم من مكر ماكر كبحي أجي بحي ينتمي فخل فخل نما بحي بيب أجي بحي وشؤمن أك غاف لذي شؤم نيال اجيغاف وكل الجوائح اك بيب اجياق موي ليغا خامن فا ياق تولي لب لو خامن دال داي ياق يونت بي فغال نما لول صلى الله عليه وسلم فغال نما غاف لوي غاف دوما لور حما عن ديوري كل ضيق كل شيء من ني نونتمي فغالنا ساماي كير لپ لو خامنا ني غافلا وزحزح عنها كل باغ وفاسق حماني وسحر لذي سحر أما عندي يري كل ضنك وشدة وزحزح عنها كل باغ وفاسق وساق رجال الخير إذ يقصدونها وألهم سحبي ذوق كل كل الزوائق ذوق كل الدقائق أما عن ديوري كل ضيق وشدة وزحزح عنها كل باغ وفاسق ساق رجال الخير يقصدونها وألهم صحبه ذوق كل الرقائق في منى حماني رسول الله من كل ماكر وشؤم بذي شؤم وكل الجوائح وسحر أكنجبر لذي سحر نيال أجنجبر وعين أكبر li ini ñeel aji chatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fegal na ma njabari aji njaba fegal na ma cati kuy catu fa man raama lor sama kat saa dox na fi masaalix yi ci sama njëriñ ku may lor daal yaa ngi dox ci sama njëriñ feneen dafa wax ne fa man fa huwa ajda wa anfau ku may lor kooku sax moo ma gën ndax loolu yëpp nag koo xam ne boo xeex moom yàlla xeex ak kooku danga koy yokk kaaraange yéen sallallahu alayhi wa sallam dafa toog am benn waaye boo xam ne dafay xas Abubakar Siddiq Abubakar amul lu aji xaste lu mu war a wax ci Abubakar amul yonent bi ngi noppi Abubakar ngi noppi yonent bi noppi waa ji xaabaabal aboubacar commencé fayu boppam yonentu bi jóg aboubacar ne yonentu ah man kii booba léegi mu may wax waxo dara man may wax may fayu nga jóg yonent bi nag waaw ba nga noppee yàlla doon xeexal ba nga jugee nag pour xeexal sa bopp seytaane dugg na te man xajumaak seytaane ci barab kon koo xam ne yàllaa koy xeexal ku ngay jéem a xeex kay da nga koy yokku dara boo ko jéem a teg nattu yaa ngi koy yokk daraja ndax nattu yi daf leen di yéegi ñoom biim ne rasulillahi mu mel ne ko laaj ne ko loolu yëpp nag lu tax yonent bi la ko a ne biim ne rasulillahi ci barke yonent rek kër fii xanaa xam ne mooy sama tata li nga xam ne fa laay làqu boo mal mooy suma wéeruwaay fa maa mubridul abdi déet aji bañ jaam bi alhaqiri jam biide aji suufe ndi xeegu biraaɓe hinde aji gañe ki kubbañ jam bi koko duti jere mukku ak tuufu ak jotak haajo dugo ci jere gis nga ba waxee yi ko yonanti demal yëpp ni mu rëy rëy sena tawaadu bi mu ko jeexale yonentu fegal na ma fett kañi fett ala rahmi gadin kirumu ñaareel bi sat bu ñaareel bi xamaani rasulillahi min kulli ramihi yonentu bi fegal na ma képp aji fett ala rahmi gadin andak ak toroxtaan ak aji xëy lil biraasi ngir xeex wa raabixin ak aji gont yonentu bi kay fegal na ma pexey noon ànd ak toroxtaanay bakkani noon buy xëy wala buy gont fegal na ma moom sallallahu alayhi wa sallam bépp aji pexe fegal na ma da gaaf ak aji gaaf fegal na ma yàq buy jugee ci ngelaw wala lu mën a jugee fegal na ma njabari aji njabar fegal na ma bëti aji catu ku may jéema lor yaa ngi dox ci samay Euh, masla loolu yëpp nag ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi tata mooy sama wéeruwaay waxul ne damaa def nangam moo tax ma am ko sama sang ki yonent bi mooy ku moo tax mu jox ma loolu fama mubridal abdul xaqiri ku bañ bu xeebu bii doo gañe mukk na sax tuub laaye li man ñeyal ka nga xam ne yebri dana sàkku dafay ut assalaamata mucc wolwula tey ut a kawe yuxalli nay ba anil madjaxi walis woykati yonantu bi wayaakooni yonantu bi min kulli qaadixin ci lépp aji jam maa ngi dama lii nag waxuma ko ngir dara waaye dama ko wax ngir laaye biir képp koo xam ne danga bëgg a am jàmm mbaa nga bëgg a kawe na nga bàyyi kii nga xam ne liggéeyam mooy tag yonantu bi salallahu alehi wa sallam kuy tagg yonent bi waxtu wu ne yow nga ne da koy jéem a jam da koy jéem a utal lu koy wàññi doo ko mën a wàññi da koy yokk te yow da yàqu yërëm ki muy wax ak moo tax mu ko waaye duut ngir la ne fa inna rasulallahi nekk yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mooy aji xaar déngareem mooy aji xaar wàllam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kay moom mooy ki nga xam ne mooy moo mooy moo koy xiir moo koy xaar waqad jaat dikk na moom yonent bi di kuñ dimbale ala kulli kaadixin ci képp aji sonne ngir jëm koolo kaadix dana dana dem ba firi damay firi kuy sonn rek waaye eh, communiste yi i kaadixiin lañ leen doon tudde mu mel ni oote bi yonent tuutim kawe na seen oote ci waxtu bu nekk waqat ku fiya fegeleef nañ ko al ahzaaba kuréel bi nga xamee ne noonu yépp dañoo bennoo ci xaswatul ahzaab nekk benn pour ñëw song yonent bi sallallahu alayhi wa ci lañ xaree xandax yàlla fegal na yonent bi noonam yépp buñ dajaloo nekk benn ci gazwatil ahzab kon yàlla fegal na ko noonu yëpp bañ booloo yi ci kawam waru du teñ delloo leen bi xayrin ci mer ñu ànd ak toroxtaane ak mer bil balaaya ànd ak nattu yi الفوادح نط يدوي يدوي مك واني نكمن مع المختار اجي عندك لاك مختار كي ينتبه صلى الله عليه وسلم في كل حالة انتحال منك ماجي عندك ينتبه صلى الله عليه وسلم في وقت ونه بحب عندك مونك في وقت ونه بولك مبقل وذكرين أبدك فاتلكو ثم قرض المدائح topp tagg wëy ay wëy wëy ay tagg yi nga xam ne moom laa koy taggee maa ngi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxtu bu ne ci bëgg ko ci di ko tudd di wëy ay wëy tim lu ma waxoon sa axdumuhu fi kulli waqtin wa burhatin ila allahi shukran munshidan ومقطعا لأني متى ألزمت فكري مدحه خلصت من الآثام أجمع أكتعا خلصت من الإشراك والشك والونا إلى جنة العرفان حرا مقنعا وترداد ذكر المصطفى الدهر راحتي وروحي وروحي وروحي سامعا ومسمعا لأن maa ngi ànd ak yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci waxtu nekk ci saa su nekk ngir sant yàlla nag maa ngi jooru ay way maa ngi dagg ay way ndax lan ndax man waxtu wu ma takk waxtu wu ma su ma xalaat ak tagg yonentu bi sallallahu alayhi wa yàlla daf may setal ci mbooleem bàkkaat yi mboole seen yàlla setal ma ci bokkaale yàlla setal ma ci ci ci sikk setal ma ci tayal ci topp yàlla ma jëmee ma nag ci xam ci jën aljannaay xam yàlla ma nekk di gor buñ goreel ci buum ak njaameeg leneen lu dul yàlla gor Cheikh Tidiane nee na mooy gore ci buum ak njaameeg leneen lu yàlla ku la mën a jur nag te yaa ngi leneen lu muy yàlla mu ngi la jaamloo yow goreegoo boo toppee bakkan bi jaami bakkan bi nga boo toppee alal jaami alal nga <coughs> boo toppee bànneex yi jaami bànneex nga boo toppee daraja jaami daraja nga boo toppee mbooloo jaami mbooloo mi rek nga moo tax bàyyi nee na daal gor nit ki du goree feeg àggut ci bugut leneen lu ma yàlla ndax nit ki lu mu bëgg jaami loolu la te fekk yaa ngi nekk jaami leneen lu may yàlla goreegoo fekk goreegoo it xeyogoo yàlla jox la xutta tasaru koy soppandiku ci ay moomeel bàyyi ne wax na ne bi xubbin wa zikrin ma ci bëgg ko ak di ko tudd fii wax na wa tardaadu zikrin Mustafa dahra raaxati man kay di baamtu tudd yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam jamono yépp man loolu ci laay amee bànneex wa ruuxi te mooy sama rooxo mooy mooy dundal kay saami an may aji dégg wa musammi an may aji déggale keneen lu tax ndax gis na ne tagg ko yonent bi wa sallam moom daf ko gis ne mooy eh, eh, gàccale ak toroxtaane te it la sax ndax bépp tagg rek ci yonentu la booloo loolu nag dàqu tagg koo xam ne lam jikkoo yonentu tagg na ko kooku ci tagg yonent bi la bokk moo tax ba mu laajtee ne ndax waxal yette attaa xubbu xayri muhammadin wa xubbu siwal maaxil amaayati wal fesbu ndax bëgg ku dul yonentu mën naa nekk bëgg ku dul yonentu bàyyi mu ne mooy gumba xol mooy génn topp mooy mooy yàlla xanaa kay nga ne ko kon kenn du bëgg kenn mu ne ah kay si waa xubbi aali mustafa wa sixaabi a bëgg ànd mooy ci nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu yonentu boo leen bëggee yonentu weta boo bëggee saxaaba yonentu weta boo bëggee ñu baax ñoo man kaana siddiqan wa ma jaaxas xasan xaqu boo bëggee góor yàlla yi yonentu weta boo bëggee borom xam-xam yonentu weta moo tax mu ne wa malik wa nu'man wa ahmadu sayidi kada shafii lawlahum adama luftu كذاك أبو العباس أحمد سيدي كذاك الجنيد العالم العلم الخلق كم بينهم أو بعدهم بالمحمدي وعبد بنور منهم يهتدي الخلق كون ينتبي موم لن يبقى wala kuñ bëgg ngir yow moom it lañuy tàgg wala kuñ tàgg ngir yonantu kuñ tàgg ngir yonantu tàgg ñu la tàgg ci tàgg yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk kon mu ne maa koy maa ngi ànd ak moom ci bépp xaal ci sama xaal ci bëgg ci tudd ci tagg ay woy fa man raacha bu fett sànni fettam nax wi ci sama wàll fa man raacha ku sànni fett nax wi ci sama wàll mu fettam fa huwa moom raaichun aji fett la ilaa naxarihi jëm ci dënnam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fal ko bil qawaadixi ci musiba yi aji màgg kuma fet kuma sànni fet na xam ne yonent bi sallallahu alayhi moom lay jéem fet ku jëmale fett ci sama dënn na xam ne mu ngi mel ni mu ngi jël fett jëmale ko ci dënn yonent bi sallallahu alayhi ku jëmale fett nag ci dënn yonent bi sallallahu alayhi xam nga ne sa fett dafay delluwaat ñëw dal ci sa kaw rek ndax wàll yi boo mën a xeex ak boo noonoo yàlla ngay xeex mën man aada li faqad azantuhu bil harb ku noonoo sama wàlliyu yàlla ne kooku yëgal naa ko xare boo xam ne maa koy xare moom ku yàlla xare nag yow doo mucc wàlliyu yi li leen may loolu mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ci ëpp dayo nag ku ci gën a jege yonent rek moo ci ëpp dayo ndax ñoom ñépp ay doon kat ci yonent bi la sallallahu alayhi wa moo tax baa ne ku ma ku ma jéem a fet ci boppam moom ngay jéem a fet ku jéem a fet yonentu bi nag yàlla ngay fet yàlla kenn mën koo fet yàlla nee na walladina yuzuuna almuminina walmuminaati bi gayri ma ktasabu faqad ixtamalu buhtaanan wa isma mubina képp koo xam ne day jéema lor jullit yi yu góor wala yu jigéen ñooñu enu nañ bàkkaat bu rëy juut gu rëy ak bàkkaat bu rëy yàlla wax na ne inna alladina yuhibbuna an tashia al faaxishatu fi alladina amanu lahum adabun alim ñi nga xam ne dañuy jéem a siiwal ñaawteef ci ñi gëm yàlla yàlla ngi leen di dig mbugal gu rëy kon jéem a séwal ñaawteef rek ci ñoom dana lor borom loo xam nag jéem koo teg ci seen kaw ku yàlla di xeexal xeex ak moom amul résultat moo tax mu ne man ku may jéem a jam yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ngay jéem a fet te yonentu nag ku ne moom ngay fet na xam ne ñu ngi lay tëkku ci mbugal gu métti wax na ne alayhi salaatullahi du masalaamuhu mu ngi julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anaalu ma xam yàlla naa xam bi maanaa ci sababi julli googu kullal munaa mboolem cakkuteemi won maraabihi ak mboolem tono yi mu ngi julli ci yontu yi ba tey julli koo xam ne mu ngi ci ñaanee pour am mboolem cakkuteemi ak mboolem li nga xam ne moom lay jaam di tonoo alayhi salatu llahi dima salaamuhu li yarfaani yàll na yëkkati ma alhaadi te yonantu bi ala kulli maadixin ci bépp aji tagg ji yonantu sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñaan nag gannaaw bu julee ci yonantu bi sallallahu wa sallam ne yal ko yàlla yëkkati ci mbooleem taggkat yi loolu fa koo ñaan fii bidal ne feneen ne yàlla jox na ko ko ndax wax na ne warut bëtu kullil maadixiina qasiratun Ani idraki ma indi fi sirqiya yarsaxu nee na dayob ak martabaak képp kuy tag yonentu kay gàtt walis àgg ci sama dayob tagg ndax man sama sahna sax na ba pare sama digganteeg way tagg ñeneen ñi daal mu ngi mel ni àll yu gudd àll yu jafe mas koo dagg moo nekk عليه الصلاة والسلام السلام لتملأ يالنا فاس من حب الأمين تبقى أمين في ينتو صلى الله عليه وسلم جوان حي سماي وال سماي وال يالنا ما نجيك شون تجيك وقم نلمتي نانك مهم بجيل إبا بجيل ينتو يالنا فاس سماي وال وقالنا حريص على إحدى السنة والمجائحين لجانب من سكناه بين الجوانحين mu ngi doon wax ne maa ngi maa xiir ci ni ay tagg ci wàlli koo xam ne moom fi mu dëkk ci sama wàll gii la dëkk ci sama xol bii la dëkk yontu kay fi mu dëkk fees na ko kon yàlla na bëggee li yontu bii fees sama xol mooy yàlla li ma am yàlla na sax yàlla nee na yaa ayyuha alladina amanu aminu yéen ñi gëm yàlla gëm leen yàlla mooy sax leen ci gëm yàlla alayhi salaatullahi zuma salaamuhu li yaqbala saayi du makkulil ma jaay hey am mbir du tere nga ñaan ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñëpp jikko yàlla lu ko taggee mooy wa innaka ala xuluqin azim waaye bokkoon na ci ñaanam yi ñu jàng ci naafilaay guddi wahdini li ahsani al axlaaqi wala yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyiha wala yasrifu sayyiha illa anta yàlla yàlla nga ma jugal jëm ci gën caa rafet ci jikko ji rafet kenn mënta jubale jëm ci jikko ji rafet ku dul yow waaye yàlla nga ku ku rafet jikko ni yonent bi amul fenn waaye terewul ne mu ngay ñaan jikko ji rafet amuma ko ñaan ñaan nanga ko ñaan am naa ko bu mu tere nga ñaan ko ndax yàlla am na ndollal yàlla it mën naa saxal moom rek ko man alayhi salaatullahi zuma salaamuhu li yaqbala yàlla na nangu moom saa yi samay dox li nga xam ne maa ngi koy def ngir moom yépp yàlla na ma ko nangu topp suma mbooleemi tagg tagg yi ma koy tagg yépp yal na ko nangu alayhi salaatullahi summa salaamuhu waxoon na kay ne ataqbaluni ya mustafa alkawni an naam mu ngi wax ne yàlla na yàlla yàlla na yonent bi wa sallam nangu su may su may tagg fale wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu na ma nangu na ma man ci sama bopp fekkee nangu na ko moom ci boppam nangu na ay taggam صلوات الله وسلامه فتسقى يالنا ناندل الأراضي سمي سوف بالمزون تنيري الدوالح يدوي فيس النخ تعالى لولو تايوان نكو عليه صلاة الله وسلامه فتسقى يعني نان الأراضي سميسوف بالمزوني شيء نير الدوالي هي دوي فاسا جندو نجي جاتلي كتشي بركي ننتبه صلى الله عليه وسلم يلا نان دانيو نير يو فاسا جندو أي صلاة الله ثم السلام هم صلاة جلي بها يعني نكتشي سببا نجحي سمك فجوك هاجو jot samay càkkuteef yépp wa kullul masaalihi ak suma mboolee mi maslaa ma jot ci càkkuteef alayhi salaatullahi alayhi ma al ali kiraami alayhi yàlla na nekk ci yontu bi sallallahu alayhi wa sallam ma al ali ak ñoñam al kiraami ñi daway tedd wa sahbihi ak saxaabaam wa man yaxtafi ak képp ku topp wa man yaxtafi ak képp koo xam ne mu ngi topp seen jeexit min kulli barin ci képp aji baax wa saalixin ak aji xew salaaxu yàlla inna alladina aamanu wa amilu saalixaati fu mu ko waxee mooy ñi nga xam ne ñooy jëf farateeg naa fi lay ñoom ñooy saalixin yi ñoom ñooy ñu ñu ñu baax yi bàyyi nee naa daal képp ku am jikko boo xam ne alquran tagg na ko ci saalihiin yi nga bokk kon salaaxu lu yaatu la waaye lu yaatu lu yaatu yaatu noonu lu màgg la ndax yàlla buy tagg ay yonentu ba wax ne ci saalihiin yi la bokk rek foofu lay jeexalee muy tagg mu ngi julli ci yonentu bi kon julli goo xam ne ak julli ci saxaabaam yi ak aali bayt rasulillahi sallallahu ak képp koo xam ne nag dafa topp yonentu bi ci képp ku képp baax